bon bëgguma def du gisaane wala météo politique mais c'est une forte probabilité. Hmm. ah c'est une forte xam nga gars dañu jaaxle gisoo libéraux hier sociaux ils se mobilisent. mais attends-toi même que le mu ngi koy Fada. Hmm. attends-toi même que ñeneen ñi sax ñëw dugg ci. danoo jommi seen bopp a toj seen gémmiñ C'est ça le problème fi ñu toll suba kànja bu doy waa ñu koy waajal mais ils n'ont pas compris mhm. que le pouvoir c'est le peuple et le peuple a choisi le peuple a choisi nañu gëm yàlla te ñëw jàpp ci Sénégal pour mhm. l'intérêt général ku leen ko doon leen koy nax et puis les xaas bi mag yooyu nekkoon ci politique ngir yàlla dem ngeen retraite dem leen toog yi mënu leen gérer nag seen carrière ba pare bëgg a suñu suñuy mhm. fi ñu toll ndaw yi ñoo ne ci politique ñoo xew. suñu bopp la ñu taal toog leen di ñu conseiller. Mhm. di ñu ñaanal seen i kurus boo leen demee màkk wut seen jàllabi yu weex di ñu ñaanal parce que def ngeen seen temps du ñu nangu ngeen def seen temps bëgg a suñu temps. fi ñu ah. toll xew te dañuy gérer Sénégal. Mhm. ngir suñu doom yi parce que yéen gérer wu pour ñun. parce que nous sommes alors qu'on est immensément riche. extrêmement pauvre parce qu'on ah, a toujours des dirigeants qui ne mettent pas le Sénégal au devant. Ils mettent leurs intérêts crypto-personnels et leurs clans mm-hmm. au détriment du peuple. Donc, Le plus jeune directeur général mm -hmm. euh, réussir une renégociation d'un contrat. Euh, sur l'électrification rurale, euh, Jean-Michel Sen, n'est que général de l'ASER, avec euh, la société espagnole AEE Power EPC. Uh-huh. Le ñu de fait rafetlu. lii la opposants c'est sur ces niveaux là féliciter les jeunes les jeunes il faut insister sur les jeunes. on est les jeunes compétents il est là. 75 de la population est jeunes léegi nag mag ñi mënuñu gérer seen laay ba pare nee naa la ñoom ba nekkee xale bu ñu daan fo. Mhm. keseng keseng la leen di jox xam nga keseng keseng. waaw tukku sungal la. voilà keseng keseng wala ñu jox leen euh, jaala xam nga jaala yi jaala yi. <laughs> mooy yi ñu doon defar ak sekket. oui jël bant nii def ko nii wut. sekket sekket mooy yi doomu tubaab yooyu ñu doon defar noonu. wutal ko mees nii tappal ko ko yooyu leen daan fowee léegi ñun xam nga sunu doom yi laa la waxuloon ñun suñu doom yi li ñuy fowee ay foo des tablettes intelligentes hein, et cetera li ñu xam ci ñun xamuñu nous ñun ci portable suñu mhm. donc dem du ñoo ñuy gérer suñu avenir ñu may parce qu'ils sont dépassés ils sont out na mhm. ils ont l'expérience nañ rek mais mhm. ñi ñu soppi et ñi nga tamit résultat saluer pour que man ci roy man hmm. parce que nous nit la renégociation des contrats stratégiques. dans des secteurs stratégiques. mais lo tax ñu fal leen. ce hmm. képp koo fait nan la nga contrat négocié renégocié programme même les licences de pêche ñun dañ na 24 heures te annulé ñu de pêche hmm. donc xamante nañ suñu biir xamante nañ lan lan lan doon jaayante. Mhm. tey il faut encourager dynamique bi parce que lépp lu ciy jóge ci njariñ. ci Sénégal lay des. Mhm. il faut que les relation tey entre partenaires yi xam dañu yàgg a xoj tey mu nekk relation B2B. Mhm. loolu la ñuy ñaan et loolu nañ ci encourager vraiment cette jeunesse là. ki nga xam ne lii leen fi teg xam nañ ko dañ leen yónni yàkkamti leen. et que tey du ñoom ñii ñooy tàddal nit ñi quoi. parce que s'il y a que le peuple qui a le pouvoir. waxtaan bi jeex na mais kontaan di fi teew. jaajëfal la bu baax parce que li ma gëm ba gëm rek mooy que hmm, y a un seul parti.